doon liggéey ak ñoom. non boobu mooy boobu mooy dernière question bi am na deuxième boobu boobu. beneen bi moom mooy production yi. jéem a góob production. ñu ngi naan mu yàq ay studio wala buy tëgg dañ naan benn semestre moo tëggal artiste label bi est ce que loolu aussi c'est c'est pour correct wala c'est professionnel ci ñoom zone yooyu. yàlla dogal na ne lépp loo xamante ne waykat war na ko soxla ci musique jëriñ la ne am na ko déggoo na de. lépp loo xamante ne woykat soxla na ko ci musique jëriñ boobu am na ko xam la la amagul public xamante ne tey da leen déplacé comme ni ñuy déplacé souvent que nit ñi moom kenn leen ñi bëgg nañ bambane ñi bëgg nañ kii ñi bëgg nañ kii bëgg ci liggéey bi ci la ñuy fekk waaye lépp loo xamante ne artiste soxla na ko ci musique macha allah te day gën a yokk jëriñ boobu am na ko beneen bi topp mooy le fait ma jóge ci label label yi ma jot a jaar yëpp bon mën naa jaar-jaar la expérience macha allah nag maa ngi sant yàlla amul kenn ku ma ci ñaawul wala amul kenn koo xamante ne am na ci benn réew ba ku romb sa morom sëkk amu ci vraiment àdduna mooy seetaan ñoom ñëpp dañu may seetaan dama wax loo xamante ne amul amu ci kenn koo xamante ne tey mën nañu taxaw ne lii lañu jote wala lii moo xew Matar Diop suma mag la yàlla dogal ma jaar ci ay loxo mu doon benn collaboration waaye mosuma signé foofu The Best Production nekk suma frère pendant des années comme ni ma ko mënee sentir nii même en état bii ni the xalaat defal ma dara ñu àndandoo ko liggéey ndax boo seetloo label yi ñoom ñu ñëpp ñoo far ñu ñëpp ñoo bokk day bay amul kenn ku ci bambali amal xar ma yàlla amul fépp fu ma jaar dugg naa fa dugg bu rafet génn naa fa génn bu rafet alhamdulilah waaye nag na leer c'est la première fois ci sama carrière ba ma débuté ba léegi maa ngi soog a signé ak label na loolu nag dafa am ñoo xamante ne ñu bëri peut-être ils sont pas au courant de ça dalee sama carrière ba léegi c'est la première fois mooy signé ci ci góor te ci jiiri ñu la tàmbali waaw. donc su ko defee c'était pas contrat. amul contrat. The musul am contrat.

ಪ್ರದೇಶ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ kami ko. waaye seen nijaay aussi si côté yaay borom numéro bi numéro bi nekk aussi waykat donc yow lan moo la poussé déjà premièrement ak nga signé si label Jërëm lan mooy say entame parce que tey boo demee ba léegi c'est la première fois nga nga xalaat xalaata lan ngay xalaat si Jéeri Ngoone loo xam ne amul woon ci sa carrière pour mu mottali ko les attentes waaw tout d'abord euh, wax naa ko au début yàlla dogal na ne Diery Ngone moom xam nga def na ay exploit def na ay preuve fii ci musique def na ay preuve fii ci culture Sénégal bu Sénégal macha allah euh, fa ma nag comme ni ma ko waxee expérience laa ko jàppee ndax ku ci mel ni baaw am di boobu ngay wax borom numéro bi sama nijaay la moom sama yaay bokk ndey baay kooku sekku man moom signé contrat ba léegi studio bi muy foofu sama kër la nekk fi studio bi bu baaxam su ma sentiree dem liggéey leneen ak leneen pour denc loo xamante ne sama concept moo nag su ma ci waxtaanee samay dirigeant dama ci nekk ndax studio bi mu sama biir kër fa laay travailler sama baat fa lay defee lépp loo xamante ne moom la artiste ci la war a ne xam nga jëriñ woon nag mu comme ni ma leen waxee dafa fekk Bambaly ci yoon mu gis euh, peut-être repéré na Bambaly di ko séddu feneen am yéene ci Bambaly yal na yàlla moo tëddee seen yéen loolu laay wax te man li tax ma am fit bi am confiance bi. mën a signé pour la première fois ak Jerry dafa fekk ni comme ni ma leen ko waxee sama biir kër laa dugg comme ni ñu mënee wax kër Baba Amdi wala kër Wally Seck di sama moom ndax Jerry Ngoné moom ay mbokk la que ce soit clair ay mbokk la maag moom benn béréb bi la maag Jerry sama papa kii la gis naa. génération bi macha allah ni ñu ko def mi ngi naan jeune la <laughs> xam nga mais loolu yëpp bu ñu koy wax c' parce que gis nañu pas yi Papa Keba di def ak exploit yi mu def ci musique ba tax na kenn mënu ko ko génne ci musique sénégalaise bi allah mais loolu tamit bu ñu ko waxee vraiment mënuñu remercier ku dul jëriñ boobu ñi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw. kon mën naa ne Bambaly Seck bu ñëwee loolu bu ci yàlla àndee Sénégalais yi jàppale ñu ànd ci je pense que man gisuma lan moo ñu tere atteindre suñu objectif te man lépp lu may def dama ci waxtaan a dugg dama ci waxtaan ak moom mu wax ma ci xalaatam wax ma ni ma ko gisee. sama yaay Ramatulaay Njaay chaque jour ko jëfee ci lépp lu may dugg ma waxtaan ci moom ma wax ma xalaatam ma ñëw nag ci nga xamante ne mooy suma staff bi nga xamante ne ba ma tàmbalee sama carrière ba léegi may gunge vraiment ñu doon ay jeunes yoo xamante ne dañoo bëgg Bambey gëm ma ñii aw ma seen fay ndax ba ma yegg see fii tey gannaaw yàlla suñu borom ñoom la mënu ma nekk nag di seen tur macha allah yàlla na leen waaw li tax ma am confiance su ak Diène Ngone pour la première fois ak label euh, si c'était à refaire dama koy defaat du ma hésité waxtaan naa ñu ma war a waxtaanal gis naa ne sama kër laa ñëw gis naa nañu liggéey ku xam maam Cheikh xam ne dafa bëgg liggéey fii kenn mësu ko gis ci détail du dugg ci ay détail xamul dara lu dul liggéey te li ma ci gën a marqué mooy day liggéey ak te du seetu ci yow dara moom li ko ñoom mooy Sénégal ndax doomu Sénégal la ñëw Sénégal yàlla baaxal ko bu ñëw investir ci musique sénégalaise ci culture sénégalaise macha allah ñu koy ñaanal jàmm guddi fan ak wér gu waaw loolu kese la vraiment. Univers

mooy maanaam daf ci am ci bëri lu ci laxasu nee naa la famille daf ci jiitu ba pare mbirum famille daf ci jiitu ba pare ndax su deret laa ñëw xam nga euh, samay waajur li tax ma ne c'est émouvant mooy vraiment musuma collaborer ak Label déjà di jéem a def conférence de presse wala mu noonu parce que ñi ci impliqué wu dañu doon ay nit yoo xamante ne dañu sori lool ci man yàgg ma accompagner ci suma carrière moo tax li tax ma ne c'est émouvant a échanger am lu ma a échanger moom mu naan xuus carrément ci lépp lépp ndax mën na jël temps mais xam naa li tax ma ne c'est émouvant et je le dama am mbégte trop trop vraiment dama am mbégte te dama gëm dama xam fi ma jëm ak sénégalais yi dama xam loolu waaw loolu bés la jërëjëf ma koy nuyu sama grand ah, loolu moom boo nee dama am ne dama laal léegi fii nga <laughs> baax doon mag joo xamante ne ku yërëm ay rakam ah, euh, yàgg maa jàppale na yàgg maa jàppale xam nga comme ni ma ko waxee ni may xoolee benn Baba Amdy laay xoolee benn Wally sama kër war na sekku ma moom signature am na suma boo xamante ne ñu ngi naan influent mentor Farmare production def clip ñoo def ñoo financé lépp man nii damay soxla dara dem ba ci sama grand frère waale ne ko lii laa soxla te def ma koy defaral kooku su ñu sekku ay signé ci dara wala dara ba ma sentiree dara am lu mu fa def xam nga waxtaan ceeb li mu ci war a waxtaan dem def ko fa ndax foofu tamit suñu kër Jéeri Ngoné ak Wally tamit benn la Kéba Seck Wally benn la ndax mooy bàyyam kon boo seetloo maanaam génnuñu ci famille bi ba tey génnuñu ci famille bi ndax Wally Seck am na ñu fi boppam Jéeri Ngoné am na ñu fi boppam mais tey ñoom ñoom ñaar ba tey dañuy liggéey dañuy collaborer kon mën naa ne génn ma ci kër gi Wally mënu ma ko rëcc Jéeri Ngoné mënu ma ko rëcc Baba Amdi mënu ma ko rëcc c'est la même chose benn la. asalaamaaleykum leen di nuyu ngeen nekk ci programme bi laa jóg melokaan bi sa première question Bambaly mooy dafa jaar ci label yu bari mu soog fa am contrat da nga amoon envie liggéey ak ñoom ci contrat wala ñoom ñoo proposé woon contrat deuxième question bi ma koy posé yéen loolu pourquoi le choix de Bambaly ak ban confiance nga am ci Bambaly Bon, le choix de Bambali, c'est simple. Hein? Il est perdu de, de femmes talent. C'est un jeune qui a beaucoup de talent. Et il suffit lu tuuti rek li ñu bëgg dinañ ko ci am sànq maa ngi maa ngi bëgg répondre aussi euh, y a un gars qui question là demandé ni que ndax Jéri Ngoné li ci amoon ci yeneen label ndax am na ci la Jéri Ngoné je lui dis que jëri wala yaatu macha allah bu bëggee studio am na fa logistique am na fa lépp loo xam ne artiste soxla na ko pour développer pour am pour avancer xam na bii daan produire c'est-à-dire dañu nekkul ci ay détails ci ay buzz ci ay wanewu nous on est discret en banque suñu fay l'essentiel ce qui nous ce qui ce qui est plus important c'est que l'artiste na artiste yëpp mooy ki ñu nekk na liggéey ci dara L'essentiel, on est là pour la culture sénégalaise, pour que la culture sénégalaise puisse avancer. Nous l'avons ce souci. Merci. waaw su ma leen ci sa question nga ne jaar naa ci ay label mais ndax man maa bëgg woon signer contrat ndax ñoom ñoo ngi ko proposé woon ah, te xamante ne ñu suñu biir peut-être bu ñu nee en deux mille euh, je euh, je donne un exemple ma joxe benn date tey ngeen dégg Bambaye na euh, mu ngi suba teel en deux mille vingt wala mu ngi ci sa bés en deux mille ne bi may xamante ak ñoom deux mille dix la c'est juste un exemple que que je donne xamante ne ay connaissance la ñu taxawal seeni entreprise bambal yi déggoog ñoom ñu ne la jaaral ñëwul am naa lu may def pour yow bëgg naa laa jàppale ci lii ci lii la preuve label yi ma jaar yëpp foo ma dem génne naa fa benn produit boo xamante ne saa cartonné macha allah naa fa xamante ne génn na Sénégal yëpp jot ci macha allah ñu baax seen baax boobu adopté ma ci loolu mais doonu woon loo xamante ne dañ koy waxtaane pour signer au contrat parce que contrat yi bu boobaa dañuy wax conditions yi nii ak nii nii lay demee loolu jotul am juste ñu nekk ci milieu bi mag ñu xamante yàgg a xamante nga taxawal sa benn entreprise gis ne nii nii nii instant bi mën nga ma teg loxo mu nga defal ma sans pour autant ñuy waxtaan ci condition wala dara moo tax aussi génn bi doonul lu compliqué doonul xuloo wala doonul benn affaire bu ñagas noonu la dem waaw